Voilà 36 ans que je suis dans le mouvement naïtan, 36 ans, de manière ininterrompue. C'est-à-dire pendant 36 ans, Diego D'abord, suis 15 ans, je supporter de mon ASC. À part de 16 ans, je suis délégué à la zone. Bataille, je suis dina am luñu ñu ànd nawetaan loolu ay fonction taxul ko waral moy bokku ci xam ci ba paré xam le rythme au auquel bat le cœur de la jeunesse de Thiès de la jeunesse du Sénégal donc la réunion ñëwoon fii seet le directeur général Mauro Malik pour mu jox son soutien pour les phases nationales 2021 mais au delà de loolu li gën solo moi du ko dañoo pour remercier par rapport à rôle bi nga xam joué na parce que nous avons ne sànq ne bu à 80 c'est grâce à ODG Mauro Malik. parce que moi, moi, à proposé du coup ñu yóbbu ko ORCAV yóbbu ko ONCAV ñu apprécier ko yóbbu ko ministère de la santé ñoom ñoom ñu accepter la la proposition mu wàcc ba tey jii vraiment nawetaan mën a am ba démb la commencé je crois que dem ko doon stade gis engouement foofu am je crois que sa yaram na daw nga xam ne nawetaan bu amul woon mën naa mënoon naa jur leneen. pour war a rek ni loolu am na importance démb je crois en plein match le président la a appelé le président de pour le féliciter de l'organisation ak li nga xam ne def nañ ko ba mbir yëpp jaar yoon te coow benn amu ci donc vraiment ñi ngi sant encore le président Maodo Mal di ko gërëm di wax aussi ni amna ay perspectives xamni xalaat nañu ko mom parce que biñ koy seeti aussi ñu ko propose partenariat entre son agence ak l'ODCAV de Thiès et je crois que ci fan yu néew dañ gis ni vraiment amna na liggéey boo xam ne bëgg nañ ko sumb ak mom